tey ban digle nga leen di jox pour que jàmm am fi. Euh, xéewal am fi <coughs> naataange am fi. mooy mooy fu ay dëkk fu ay dëkk tey responsable famille ay xale bëgg faa jaar bëgg faa def dara nga génn tere leen yàgg seen waa kër ngeen génn néew ma bu kenn xeex néew ma bu kenn xuloo mais ñun ñëpp ay responsable lañu. waaye bu fekkente ne ku ne da ngaa toog sa kër tëju ni bu ma génnee ñu def ma lii mbaa bu ma génnee ñu def ma te waaye jur yi itam parce que ñiy def loolu xale ay xale yu ndaw lañu hmm? waaye jur yi itam nañu téye seen doom yi ñu téye seen doom ah, parce que am na loo xamante ne bii moom. waruñu nangu homme politique xeex loo leen. waaw waruñu ko nangu parce waaw parce que waaw parce que doo ca gis seeni i doom yi seen i doom du ca nekk de <laughs> waaw dafa am loo xam ne seen i doom du ca nekk.